li gis si Déthié mooy Déthié dafa am conception bu ma def boo xam ne li ko jëkk intérêt mu enrichir le Sénégal. enrichir waaw économie Sénégal mu agir ci bu baax ba nga xam ni. man moom wax croissance deux chiffres ñi ñu ko doon wax ba léegi ñun gisagul. non xam nga tudd ko ma baatu croissance. Hmm. yaa ko tudd dema ni mu fexe ba économie Sénégal jóge fii egg fee. en produisant ba ci les les plus pauvres. voilà exactement produire des richesses en faisant quoi. en développement le secteur secondaire maanaam li nga xam dañ koy produire ci agriculture. jógee secteur primaire jàll ci secondaire agriculture industrialisation boobu ba léegi loolu la ñuy naxe. waaw mais xam nga. c'est le moteur de de de développement. waaw mais loolu moom naxagu ci kenn parce que joxaguñ ko occasion wane ndax day naxewul naxewul na ko Sénégalais jox occasion te jugé ko sur donc moom li wax mooy tey itam euh, c'est un cadre de l'industrie sénégalaise il n'a jamais été que dans l'industrie ba mu génne école ba léegi ci industrie la nekk monter des industries gérer des industries faire grandir développer des industries et cetera et te loolu macha allah yàlla nga ko ciy dimbali. kon secteur la boo xam ne dafa ko maîtriser te itam fab bëtam du ko teg ci yeneen nation du xool li fa secteur industriel indi mun ne kon étape boobu bu ñu ko sàggane bu ñu ko sotti mënuñu ko sotti on ne peut pas faire l'économie d'une industrialisation de not pays depuis l'indépendance li ñuy gëmloo. mooy industrialisation nangam nangam mënuñu ko transformation de nos produits def la wuñu ko ñu ne ñu nekk de bon élèves ba fi mu ne nii sax boo xoolee avec euh, les problèmes climatiques ñun dañuy ñecc ak biti tey yor suñu xaalis li ñuy gëmloo mooy bon yéen bu leen dugg ci industrie parce que day polluer nangam nangam dugg leen société de service mais moom nee na on ne peut pas sauter cette phase là parce que tey xooleen li ñu am ci ay ay ay ay ay ay ay industrie extract extractive tëbb suñu produit yu minier yóbbu ca biti ñu defaraat ko wëlbati ko di ñu ko jaay ba ci engrais bi nga xam sax daa dañ ko produire nag dañ ko mujj bàyyi phosphate bi di dem ñeneen di ko transformer di ñu ko jaay mu ne nag suñu produit yi ñu am yëpp muy lu jóge ci suuf si ci loo xam ne dañ koy bay wala muy jóge ci suuf si loo xam ne dañ koy gas fii lañ koy transformer te transformation boobu ñaari mbir indi da indi plus value mhm. bu ñu paree la ñuy jaayee day soriantoo lool ak li nga xam ne dañuy jël rek xëpp jox ko kenn mu transformé te day créer ay emploi dëgg la léegi nag te comme dañu toll foo xam ñu ngi naan jeunes yi liggéeyuñu mm-hmm. mais occasion la pour jeunes yi liggéey mm-hmm. bokk imaginel tey nga mën a fexe ba benn mandat nga implanté ci un nombre un de euh, x de d' industrie dix quinze vingt trente quarante industries yu bees mais yëpp ay ay ay ay kii la euh, ay possibilité de de de d' offre d' emploi la pour jeunes yi